mbokk internaute di ak tu ñu leen di nuyu di leen jaajëfal bu baaxa baax yéen nga fi ci tribunal bu Dakar tay nek ñettelu fan at wérum janvier atum 2018 bëss bi nga xam nak maire bu Dakar ak ay ñoñam dinañ jakarlo ak euh, ki di juge bu correctionnel ci fatale rek wérum février lañu commencé won auditionné maire bu Dakar foofu si brigade des affaires générales ba leen dégloo sur le fond doyen des juges Samba Sall daal leen placer sous mandat de dépôt ci kaw lolu nak élection législative fi daal di ñëw ñu daal koy tabb tête de liste bu Manko taxaw Sénégal ñu def ko député député mu war a dem foofu ci assemblée nationale ay avocat doon ñaan bàyyi ndegandiku yoo xam ne yëpp dañu koo mujjee bañ. dugg ci tribunal tey nekkoon lu jafe lool nit ñi fu nekk la ñu jógee ngir rek ñëw teewe procès bi ñeel xalifa sàll di maire bu Dakar dañoo mujjee nag def ak rang pour dugg foofu ci tribunal ba takk der yi bari lool di visite nag saak yi nga xam ne moom la ñu yore laata ñu dugg ci boobu tribunal. ci kaw loolu Idrissa Seck ànd ak Déthié Fall ñëw rek ngir nag feddali kóllëre bi nga xam ne séq na ko ak maire bu Dakar. ci kàddu yu mu fa yëkkati ci micro Dakar Actu bokk na ci moom nee na waxul sax mbirum caisse d'avance bi waaye kii di président Macky Sall warul daal di jël justice bi rek def ko ngànnaay. man waxuma waxu caisse d'avance waxuma waxu loolu li may wax mooy procès bi war a am tey sénégalais yëpp war ci taxaw mooy président de la république.

man ñëw naa fi depuis 6 h du matin ñun dañu ñew ne la ñu nee ñu di wiire rang après ñu rang ba ñew fi ñu jékki-jékki génné ñu bon comme ça quoi dispositif bobu daal la ñu teg parce que keroog gisoon nañu nit ñi ni ñu baré. bon lolu seen défaite lay doon parce que day woné ni Khalifa Sall dafa am ay nit lolu lañu bëggul lolu moy problème bi procès bi procès politique la comme lim la wax sànq politique procès politique la parce que IGE recommandation la def Khalifa Sall nañu xol caisse bi nu muy mais neewul nii carrément xalifa Sall dañ ko war a topp ci yoon ak lii ak lii parce que Macky Sall bu waree épingler am na ñu mu war a épingler waaw ay nitam ñu ngi fi nekk fii di def lu leen neex ñu bàyyi leen. chargé de communication du maire de Dakar a a dafa jàpp ne procès politique la ak ak yelleefu Khalifa Sall pour ko ba mat sëkk ba commencer jugement Nous sommes venus parce que procès est ñu affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar comme le 14 décembre dernier on nous avait convoqué qu'il y a eu un renvoi et que le maire qui vit victime d'une cabale politique parce que moom ni ko c'est une cabale politique qui a des habits judiciaires Je moo représente devant le juge aujourd'hui donc ñu ñëw rek xol parce que gis nañu ni bi mbir mi tambalé ba légui ces droits n'ont pas été respectés di am njort parce que ci njort rek lañu mëna mën ni que ak procès bi di tàmbali dëgg dina jëpp et que dinañu xamné ne lépp ay conspiration politique la rek pour éliminer un adversaire politique. ci fàttali rek Khalifa Sall ñu ngi auditionné woon fii ci brigade des affaires générales du détachement bu division des investigations criminelles ñu koy topé association de malfaiteurs détournement sous des deniers publics faux usage de faux dans un document administratif et blanchiment de capitaux mu nekk ay chef d'inculpation yu bari loolu kon Khalifa Sall ak ay ñooñam nar taxaw ak àttekat bi Dakar ak ci tribunal de Dakar les polos xam ne rek xew na fii ñu yeesal avons ko ci suñu micro. ginnaaw ba ñu dàqee atte bi ba ñaar fukki fan ak ñant ci weerum janvier ay ñooñom génn nag foo tollu dégg turu Khalifa Sall ci seenu gémmiñ président ginnaaw Déthié Fall Bamba Fall ca Seck Banda Diop ak ñeneen ñi fa ñëwoon ba ñu génnee journaliste yi amoon na ni loolu jafe-jafe ngir amal li nga xam ne moo soom seen liggéey ci kaw loolu sax kameraman bu Dakar Actu dañu ko xoqatal bundu xatal ko journaliste ba moom ñu daal di koy brutaliser. muy wane ni dossier xalifa Sall nag nekkul dara lu sedd xanaa nag di xaarani fala la wànnent di mujjee ak gëtëm.